ko bokk kenn bëggul ko yàq kenn bëggul fitna kenn bëggul te perturber mais lépp nañ ko teg ci yoon ku tegul ci yoon ñu teg la ci yoon ku tegu ci yoon ñu may ko nag liberté ak afia ak yoonam ci ça la réalité euh, préfet bi indi na ay lay ca la jël dogal aaye leen ko opposition bi nangoon nañu ko lépp dal nag calmé na Sénégal lacrymogène tàkkul sànni sànniwuñu xeer teguñu loxo kenn respect boobu nag naka ñaari côté yëpp continuer am ci population bi ñaari côté yi su ma ko waxee mooy ñu féete ak nguur gi bu ñu leen demander baneen rassemblement ci baneen place baneen itinéraire nañ leen accepter autorisation boobu dañuy taxaw def seen ay discours xayma seen bopp ci wàllu mbooloo. Mm. yaa xayti mu laana loolu posé wul problème loolu posé wul benn problème te amul lu mën a yàq. Mm-hmm. te fii Sénégal toll bu ñu def lenn loo xam ne dañuy nekkati ci fitna sànni ay xeer nit ki wàcc bëgg a ñibbi te du ñibbi nit ki gaañu ci manifestation yi loolu ñoom ñi jiitee ñoo ko war a gën a moytu ndax borom caq day moytu borom ba neen mu ngoog euh, Mansour ñu wax ci génn maire bu Dakar Plateau muy joxoñ baaraam euh, maire bu ville bu euh, Dakar ci na nga xamante ne moom lañu ñu voté budget bi ñu sukkandikoo ci Alioune Ndoye dañoo gën a taxaw ci dépense fonctionnement yi tege ne investissement yi waaye tànneef boobule du ab jalgati procédure bu ñu sukkandikoo ci ba dara Faye di expert ci wàllub décentralisation muy xamle ni sax loi yi ci ngàbbinu collectivité yi nañu ko tënkee dafay gën a kon euh, jox gëdd euh, li lee di euh, fonctionnement yi mu jàpp itam ni gënnub maire bu Dakar Plateau daal wàllu politique kon provocation politique donc moom moo ko lal noonee la ñuy jaar wax ci tuberculose ci Ndakaaru ndax téeméeri cas boo jël fii ci Sénégal ñeent fukki yi ci Dakar la ñu nekk loolee nag moom moo tax médecin médecin chef de région daal di woote ab ndaje dajale médecin chef de district yëpp bu ko defee euh, ñu waxtaanee nan lañuy def ba li mel ñu daal di koy xeex ñu ond ci ak jaratu ay chañig taxi mu ngi wullee ñaay ci ndakaaru soo jëlee téeméeri malade yu nekk ñu am tuberculose ñeent fukk yi Dakar la ñu dëkk kon Dakar dafa fi la nit yi ëppee ba pare superficie bi nga ndewul donc yooyu yëpp dafa nekk ay facteurs yoo xam ne day favoriser tuberculose. coordonnatrice bu programme de lutte contre la tuberculose dina wax lu ko waral. il faut que euh, mesure diagnostique yi yokk ko il faut que ñu gën a sensibiliser nit yi aussi ci tuberculose. dinañu indi ay yeesal ci ni ñooy toppatoo ñi am jàngoro sëqët su tar si. boo ñëwee suñu centre de santé yi. nañ la fi faj malaat bi tamit même suñu xamee fan la dëkk dañuy jël garabam. jël dossier moom yëpp yóbbu ko ci poste de santé bi nga xam ne xaj na du paasati di ñëw ba ci centre de santé bi donc faj bi dafa gratuit. di leen fekki euh, fi ñu nekk ci dëkkuwaay yi sensibiliser leen proposer leen dépistage pour mën a génne cas yi nga xamante ne excès guñu ci bis structure waa kër docteur. mu di initiative bu njëkk bu médecin chef bu diwaanu Ndakaaru dina tax ba ñuy xeex jàngoroy sëqët su tas si ci district sanitaire yi dinañu gën a jël seenu matuwaay ngir ñu jële fi jàngoro jile. ñu wax ci yëngu-yëngal bu jaaykat ya ne ca marché central bu Kolda amaloon ñoom ñi leen ak dañu leen fa teel a jële tey ci suba ndax autorité municipale yi dañoo tàmbali ay opération ngir yaatal yoon yi foofee opération boobu le nag ñoom moom la ñuy nakarlu ñu ondu ci ak Pape Kadiali Badji ak Alioune Badara Sané jaaykat yi ak ñooñu la nekk ci kaw tali bi mere nañu ba futu autorité yi nekk fii ci Kolda li ko waral dañ leen a génnee foofule. ñu koy d'accord sàcc ñu fenn ñu jaakat drogue yaa nga fi jaakat lépp a nga fi te ñun sag dañoo sonal fii Kolda gi xanaa ñun dañoo. yégaluñ ñu ko démb daal la démb daal la xew-xew bi am ñu wax ñu ne ñu suba danañ leen fi jëlee suba teel ñu ñëw dajaloo fi yóbbu ñu teguwul fenn. ca mairie ba nag kii di secrétaire général ba di xamal lan moo tax ñu génnee ñooñu la ci tali bi. lu ñu desee mooy ñu appliquer sens unique bi pour améliorer circulation bi moo waral les opérations de sensibilisation bi ñu nekk def mais au même moment ñu avons vu qu'au du marché marché central Eh, am na accès yu route yoo xam ne kenn mënu fa jaar commercant yaa ngi toog ci kaw tali bi te tali kenn defaru ko pour jaay ñu ne ñu profito régulariser loolu génnee ñi nekk ci kaw tali yi pour nit ñi mën a dox tranquillement dogal bi ni mel askanu Kolda di ko rafetlu bu baax a baax demande bi mun naa wax ne rafet na ko parce que wàññi na si kii bi quoi embouteillage bi dina wàññi accident yi bu baax nit ñi mën a dox seeni soxla vraiment eh, nit ñi dinañ ci dinañ ci sawar yeex nañ def lu mel nii daal vraiment war nañ koo mën a def parce que ñun ñoo tax tey tali yi nekk fii. tali ñu defuñu ko pour peut-être lañ dañ ko def pour askan bi. di wax ne kii tali yi xatoon nañu lool fii ci diwaanu Kolda gannaaw occupation anarchique ba ñu nemmeeku li ni mel taxoon ku war a jël tali sa xel dut. Euh, Mansour mu mel ni ñi jaaykat yi meree noonu la ñuy aw ci tali bi bëggee. mais loolu mooy yoon ab dëkk dañ ko war a setal. Mhm. ab dëkk dañu ko war a jox respect melokaanu dëkk ba ab dëkk boo xam ne dafa bëgg a gis nga daan doole ak liggéey ñëpp dañu ci ànd képp kuy kocc kocc mais marchand ambulant mooy ki gàddu ay mbuusam di wër nga xam ne deful benn stationnement ni occupation mais bu ma tuddee sama bopp marchand ambulant ñëw ci kanamu taabal ji te su ma waxee di ngeen xam ne dëgg te may wax mais man góorgóorlu yi lay àndal guddeeg bëccëg ci ak ngoon dóorkatu waar yi lay àndal mm-hmm. sa àq mu ngi yem fi àqu keneen commencé dañu bàyyi mbedd yi teg sa taabal commencé ci wala valeur u dix mille ba yàgg nga def ko valeur u cinquante mille ba yàgg nga def ko valeur cinq cent mille même suñu mbokk yi nga xam dañuy teg ay taabal ci kanamu tali di jaay ay gerte caaf mais loolu du yoon légalul mhm. bu fekkee da nga bëgg na bu ñu la tooñee nga yuuxu ñu ànd ak yow dangay nekk ci lu legal mais ci kaw kanamu tali nga occupé ko bu oto saaraanee gaañ leen ñu mhm. kiy dox du am fenn fu mu jaar tey ñaata accident moo am ci nit ñuy dox ci kaw tali bi parce que mun amuñu amuñu espace trottoir boo xam ci la ñuy dox ku bëgg togg omelette di nga toj nen ku bañ ñu mere la ku bañ ñu diingat la ku bañ ñu xas la doo liggéey nañ defar dëkk bi écarte nit ñi ci mbett mi kenn ku nekk nga nekk foo jaayaat beneen bi ci des message bi may jëmal sama mbokku ndaw yi bari woon naa tey mbuus mooy yor ren ba déwén doo dajale cent mille francs yu mat yu bokk benn buum te kooku noonu di wër noonu yor mbuusam boo xam du dajale cent mille francs bàyyi na këram wala seen dëkk tool boo xam ne lu gàtt gàtt mat na juróomi hectare wala ñetti hectare mhm. mais retourne leen ci àll bi dem bàyyi ko bisab mais retourné leen ci àll bi dem bàyyi ko sab-sab mhm. retourné leen dem bàyyi ñambi c'est ça la réalité gis nga tàyyal te gi nekk ci ndaw ñi fekk ñu ci waxtaan ak ñoom di leen ñaax ça ne veut pas dire que dama ànd ci ñuy néewal doole ay marchand ambulant wala ñuy taaba taaba du loolu de. mais ab dëkk dafa war am ŋàbbin ci ŋàbbin woowu nag kenn ku ne yaay utal sa bopp respect mënoo bàyyi cinq hectares gàddu ñetti mbuus di wër loo ci am te nga te yow boo gëmee li nga am léegi nga nekk millionnaire. faw ñu am politique gu ñaax ndaw ñi ci ñi des ci àll bi di nangoo liggéey demal tey ci kaw gii. da ngay gis fukki mbooy ci àll bi xale yi bu ñu xëyee ñu ngi ci penc ma nekk si seen ay grand place tayeel ak yàq du tàggale kenn kum ndóol mhm. liggéey du wër di jaay wala teg table di jaay liggéey am na beneen méthode bu fekkee bëgg nga am mooning quoi. Mhm. il faut ngeen génn ci système mu liggéeyu ñàkk quoi mais jéema a loo xam da ngay am morning mais ci ñàkk nag ci liggéey ci dóor waar. Euh, Léopold ñu gis ni euh, genre opération yi bu amee bañ jëlee leen fa diir rek la ñu ciy teg ñoom ñëpp ñu ñëwaat. ñëwaat waaw diir la après ñu ñëwaat parce que tout simplement xam nga l'occupation illégale de la voie publique dafa am malheureusement au Sénégal dafay am ay ki ñuy génnee ñu teg ko mais nit ñi dañ koy salfaañi mais dañ leen di bàyyi ñu nekk ci loolu léegi bu ñu demee ba ci biir. dañ koy jàppee ne lii mooy dëgg léegi soo leen buggee génne ci loolu dañ koy jàpp ne que ñu cee génn parce que dafay mel ni dafa loo xam ne ne loi bee ko consacré te yàlla xam ne ne loi bi ko parce que li ñuy def dafa wëlbateeku c'est-à-dire dañuy tere nit ñi ñuy jaay sur la voie publique mais loolu dañ ko war a mun a respecter mais également ñi nga xam ne ni ñoom ñooy jaay dañuy occuper trottoirs yi. Mhm. te alors que c'est des lieux de passage donc yooyu yëpp mun ñu jàpp ne que waa service d'hygiène ñu nga ca mën nañu jàpp waa police ñu nga ca waa gendarmerie ñu nga ca parce que dañuy ñëw ne leen mais fii ngeen toog nii c'est des trottoirs c'est des lieux de passage. Mhm. amu leen droit ngeen toog fi jaay ko marché baa ngi fii ku ci nekk nga wut sa kantingu bopp suñ la mun a lay tegal foofu ñu tegal la foofu wala.